mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen tey nag dafa am loo xam ne nii ci la ñuy dox muy làmb 100 pour cent ngeen xam ko mu am promoteur wala group boo xam ne dañ leen xamoon ci tëgg làmb ñu ñëw fi def fi benn année bu doy waar muy waa Leewtoo production année bi jeex nag gisuñu leen ñu def année balance comme ni ñu ko mën a xamee saison baa ngi waaju ubbi nag dégguñu leen ñu bëgg nag indi leen ci ay leeral moo tax fii ñu yéeg nii su ngeen ñu toppee dañuy dem seet ki nga xam ne nii mooy Pape Thialis moom mooy directeur général lu Leewtoo ñu bëgg a laaj ko moom saison prochaine ndax dina tëgg làmb wala duñ tëgg làmb ak ca kon yàgg maar bu la neexee nga ñëw salaamaaleykum DG. DG maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Babacar. mbaa yaa ngi si jàmm. waaw ça va alhamdulilah. ah tey de dañ na seet woon parce que sénégalais yi rawatina ahlu làmb ñu bëgg xam xam production bi nga xam ne mooy tëgg làmb. dafa ñëwoon def benn année bu doy waar après actuellement mu def année blanche ñu bëgg a xam nag mais nag balaa ñuy dugg si loolu dañuy sàkku xam naa toogaay ba pare ñu toog ñu jël place <laughs> ah. ñu lay bëggee Babacar. yaa ngi am jàmm. waaw ça va alhamdulilah di leen nuyu ñëpp ak di nuyu sa collègue yi nekk dans la presse yëpp. Hmm. Pape Thialis Faye directeur général lu Leewtoo production Leewtoo production bari ay bànqaas yu aju ci biir Leewtoo TV Leewtoo point net ak yeneen ak yeneen mais Leewtoo production mooy amal événementiel yi nga ñëw fi benn année tëgg ay lamb yu ñu soxla woon ñu yaakaar ne loolu day continuer année ba sa topp ngeen stand by wala ngeen arrêté lu xew lan moo xew carrément moom la Sénégalais yi bëgg a xam. waaw Babacar ñu ngi lay nuyu di ñi nga ànd ak sa cameraman bi donc euh, comme ni nga ko waxee ah Leewtoo production tey nekkatul benn structure rek bi évoluer si si làmb donc am na branche yu bëri donc euh, am na branche presse bi mais aussi am na yeneen branche boo mu ngi si dans l'audiovisuel tey jii on est on est on est producteur audiovisuel donc ñu ngi si ñu ngi si production série série télévisée yi ñuy daw Sénégal yi daw en Afrique mm. aussi am na yeneen branche yoo xam ne au la de ça aussi ñu ñu ngi si c'est vrai que si làmb lañ démarré parce que jàppoon ne ni euh, si làmb lañ lañ commencé woon parce que événement la ñuy def donc dans Leewtoo aussi y a le par y a événement mooy Leewtoo événementiel bi nga xam ne moom mooy nekk tey Leewtoo production moom mooy def làmb ji ak di def waaw. dama la bëgg a dagg foofu balaa ñu dugg 100 pour cent si làmb ji nga ne Leewtoo boo xam ne yëngatu ci wàllum audiovisuel maanaam produire ay théâtre ak yooyu loolu Leewtoo daf si liggéey effectivement Leewtoo tey jii ki am na yeneen branche yoo xam ne ajoute yokk nañ ko si Leewtoo mooy Leewtoo bii def bii def événementiel comme yenn show yi yenn concert yi dona naa fi def benn concert ak ak ak Djiby aussi am na yeneen yoo xam ne tey dañuy yëngu si audiovisuel donc production série tey am na waaw film yi nga xam ne mooy daw Sénégal par exemple tey jii am na film boo xam ne bokk nañ ci nekk producteur donc euh, mi ngi dawoon ci temps si du koor bi donc euh, ñu tuddee ko ndogu à la présidence bu jeexee am na yeneen yoo xam ne mi ngi ñëw donc am na série boo xam ne dugg nañ ci ak ay producteurs ñu ngi ci donc muy ñetti série yoo xam ne novembre incha allah dina dina commencé daw si télé Sénégal yi waaw yooyu aussi ay co dañ si nekk comme coproducteur donc producteur bi nga xam ne moom mooy def film bi dañuy ñëw ànd ak moom ak benn télé de la place bi i i média ITV ñoo bokk ñu ñett nekk ay partenaire def série yooyu mu mel ne tamit balaa may yoogaat si lamb bi rek football bi tamit da nga ci laal parce que yaakaar naa su ma juumul yow yaay président wu Guédiawaye waaw football moom maay président Guédiawaye football club parce que sama passion football la donc depuis deux ans maay Guédiawaye maay président Guédiawaye football club dañ fa am contrat juste boo xam ne moo ñu permettre dafa suñu act ñu def suñu activité au sein de de Guédiawaye football club et contrat bi incha allah deux mille vingt quatre lay jeex. incha allah léegi nag ñu ñëw ci làmb ji nga xam ne ñun ci lañ ñu xamee cent pour cent wala ci lañ ñu bëri bokk xamee Thialis Faye sénégalais yi làmb ji saison ñëw na ngeen toj ko saison ba ci bi ci topp mooy bi jeex ngeen année balance lu waral année balance bi. waaw saison saison bi ñu njëkk a def dañ ñëw fekk làmb ji nit ñu bëri génn si làmb ji donc ñu ñi amuñu woon yaakaar ka làmb dina dina dina toll dina dina dem fu mu nekkoon. donc ñu ñëw apporter suñu touche parce que jàppoon nañu ni jeunesse bu fi nekk jeunesse Sénégal bi donc làmb la ñu xam Sénégal sport am làmb la donc bu ñu gisee ni ñi nga xam ne ñoo yoroon làmb ji commencé génn donc làmb ji am na problème ñu ñëw apporter suñu touche mooy suñu premier année bi. deuxième année bi aussi ñu bëggoon continuer def da am combat yi bëri yu ñu démarché ak ay lutteurs te du ma tudd seen tour mais jàpp naa ci lu ci bëri blocage bi si cachet yi lañ ko mooy mooy mooy problème bi. donc cachet bi mooy problème bi sinon ñeneen ñi ay taamu ay taamu ay mbër lañu comme ñun lu ñu wax aussi dès le départ ba ñu siy dugg mooy ñun du ñu xëccoo d'abord si làmb yi deuxièmement aussi duñ topp di daw si ay làmb donc bu ñu lu ñuy def pour sénégalais yi la donc bu ko fekkee ki ñu ñu koy defal ànd na ñu ànd d'accord ci ay kii dañ ko def pour bëggal Sénégal mais bu demee ba am ay jafe-jafe yoo xam ne si ay cachet lay nekk wala yenn mbëri bëggu ñu bëri yeneen bëri duñ ci sonn dañuy préférer dem def leneen parce que am na leen lu ñu def sa à dire làmb du suñu activité ñun on a comme ni nga waxee sànq rek ñu ngi si audiovisuel ba ñu xamee ne làmb ji taxaw na dañ dugg si production audiovisuelle yàlla def na tey ñu ngi si quatre séries yoo xam ne produire nañ te xaalis lañ si def donc ça veut dire que làmb ji aussi parce que bu par rapport ak cachet yi incha allah dañ siy dugg donc ñu si tant que ñu ngi si Leewtoo mi ngi existé société bi di existé rek dañuy tëgg maintenant rek tout dépend maintenant mbër yi ndax dinañ raisonnable par rapport ak cachet bi bu ñu ñu leen di boole ñu nangu bokk bëre boobaa ñu tëgg làmb ñu bëre incha allah. bu mu Tapha Tine ak Ama ngeen ko daaw Siteu Papa Sow ak moo taxoon taxawul parce que ñu jun ci liñ ñoom ci kase da ngeen a mujjul génn xaalis jox leen wala. non du du juboo nañ si cachet du juboo ak mbër yëpp si cachet c'est vrai waxtaanee na ay comme cachet comme euh, combat yi nga wax yëpp juboo ni waxoon nañ ñoom si si si si si si ay cachet peut-être ay tafaat mais am ñoo xam ne peut-être yenn cachet yi ah, bon dem nañ ba xool ni kashe yi dafa ëpp te liñ dem bañ mooy li am mooy téye suñu loxo ba pare moom ñu bëri ñoo xam si VIP bi bëriwuñu te loolu jëmalul làmb kanam bu ñu sawantee ji bu sama mbokk promoteurs yi sama ñoom mag ñoom asi sama ñoom mag ñoom gasso ñoom ñëpp bu ñu tëggee làmb bu amee lu des ñun tam ñu jël tëgg mu xam ne ñëppay gis seen bopp ci làmb ji mais bu fekkee yenn cachet yi dafa ëpp donc man à mon niveau man je préfère def lu raisonnable loo xam ne dañ koy pour jàppale jeunesse mais aussi loo xam ne ni bu ëllëgee doo si gaañu donc moo taxaw ñu def moo làmb yooyu euh, affiche yi nga wax yëpp waxtaan nañ ko mais si bëri ay jafe-jafe ñu mu tudd nañ montant yi yi yi ki nekk li nga wax ni moom lañ lay fi la moom nga bëgg ñu fay la ko mais jàpp naa ne man affiche moo wax daal bu amee jafe-jafe ba ma toog rek c'est parce que ñu si ëpp si cachet yi la wala xëy na ñu lay booleel bëggoo ko wala mu amee condition yoo xam ne jàpp naa ni ni du du du du loo xam ne lu yenu maanaal te man aussi du ma nekk di communiquer si loolu parce man ñoo pour ay polémique wala wax kii kii delloo non moi je préfère li may def je responsable mu ñëwee pour def lii gis ni lii mënatul dem parce que am na li je préfère taxaw bon bu ma laajee aussi ma si dugg di expliquer parce que après day am nga wax kale tontu. waaw te bugguma si polémique parce que man ñëw ma pour ay polémique. Thialis dafa tëgg saison bu njëkk bi def ci perte wala. non perte parce que projet boo jóg am na objectif objectif bu ñu amoon bu njëkk bi pour man atteindre nañ ko parce que moo tax tey xëy na mënuñu mënuma si kii mais objectif bu ñu taxawoon a tëgg làmb dugg atteindre nañ ko waaw maintenant nag lii nga xam ne lu ñu tëggaat am nañ say objectif yoo xam ne lii mooy objectif bi donc bu fekkee ne li ñuy dox comme affiche taxaw na incha allah ñu fexe atteindre objectif yooyu actuellement yaa non pour le moment nii moom joxuma combat honnêtement par rapport ak daaw doxoon nañ ay trois quatre komba jafe-jafe tey jii yàlla def na gis nga combat yooyu mujjul amul ñooñu aussi ñu ngi si chômage ça loolu baaxul parce que man jàpp naa mbër bu nekkee sa liggéey la waroo toog ak boo toog bërewoo donc bu la nit fayee loo xam ne li nga amoon mu yokk si cinq millions wala dix millions da nga war a bëri mais nag parce que fii kenn kenn ñëwul pour fay mbër loo xam ne da koy waaw ah, donc mënoo bëree combat am tey cinquante millions keneen ñëw jëla tëgg bu beneen combat tegal la si cinq millions ou dix millions nga bañ ba que parce que bëggoo bëree. bëggoo bëree mais duñ la fekk si cachet cinquante millions wàccee la ay vingt bi duñ ko def parce que xam nañ cachet yi xam nañ mbëri fu ñu toll te fii dara du fu nëbbu mbër bu nekk xam na luñ la luñ la fay lu ñu bind ak lu ñu bindul. donc bu ñu ko defee rek c'est pour ñun ñëpp nañ raisonnable muy mbër yeeg promoteurs yi ñëpp raisonnable ñu tëgg pour làmb ji ñëpp parce que suñu national la. léegi mbër yi nañ raisonnable mais actuellement mbër yi amuñu combat rawatina VIP dégguñ ci combat bu taxaw doon dañu ngi dox ay combat yow tey fi nekk nii boo doon combinaison ban combinaison nga mën que combinaison yi nit ñaa moom lan def comme combinaison lu mu xalaat. waaw combinaison yi mooy li ñuy wax xam nga fii moom amul <laughs> du du du du jàng école combinaison yi fi nit ñi wax lépp. presse bi di wax depuis ba lamb Modou Lo bu ah, kii bee jeexee ba léegi combinaison yu ñu wax yëpp ay combinaison yu jaar yoon la yoo xam ni ñu mën tëgg donc yiñ si wax am nañu boole Modou ak ak ak ak Balla Gaye nga ñoom luñ ci wax donc ça veut làmb jooju ko moom mu am pour le moment te Modou Lo aussi couronne bu mu yoree jàpp ma ni moom euh, bëgg mu ko gisee ci suma koo xam ne dina dina dina vandaliser couronne bu mu yoree donc mooy du jël combat bu nekk balaa mu ko jël na xool combat bi donc Modou Lo kooku mëntu jox tamit foo naa ne war na mën a bëre moom. waaw yeneen combat aussi Balla Gaye mi ngi fii ak Tapha Tine dégg naa ko ce matin loolu aussi affiche la mais est-ce que Tapha Tine je sais que il est prêt pour bëre moom mais tout reste Balla Gaye moom mooy mooy mooy problème bi. am yeneen affiche aussi yu fi nekk ay Boy Niang affiche am am na Ama Baldé mën na bëre ak Gris Bordeaux mën na bëre tey ak ak ak wala bombardier donc guy gii rëg rëg war nañ mën a bëree donc yëpp waaw yëpp ay combat yoo xam ne ñu affiché daal ñu ngi fi donc nu ma koy waxee loolu sama promoteur yi lañ mbokk promoteur yëpp xam neen xam ne affiche yi donc am nañu si dox donc ku nekk na nga dox rek loo am mi sa wërsëg waaw mais je pense que bu re bu mbëri raisonnable incha allah rañ mbër du mbër du chemin. tëgg la mu metti na. bon métti na métti na je pense àdduna moom lépp liggéey boo gis métti na. liggéey bu gis métti na surtout boo ci soog a dugg métti na parce que ñu ngi si jàng lu bari te loolu mooy mooy mooy mooy lu si am solo mooy nga dugg si benn mbir boo xam ne xamoo ko woon dugg ci aj bi jeex nga def sa bilan jàng ci lu bëri parce que àdduna moom moo xaw a lëndam mais di nga si gis lu bëri jàng ci ba bu ëllëgee booy def yu bëri di nga ko mën a invité te te loolu yëpp yokkute la daal parce que loo dugg lu bees jàng ci ba mën si tirer ay leçons bu déwénee nga def plus je pense que loolu loolu loolu jàngte la Leewtoo dina tëgg ren daan làmb incha allah. incha allah bëgg nañ tëgg làmb parce que structure la parce que mënuñu fay ay nit am personnel boo xam tey vingt vingt personnes la ñu la ñu fay ay salaire donc ñooñu bu la ñu c'est pour parce que am na loo xam ne moom la ñu bëgg a def mais li ñu bëgg a def nag dépendre si ñun. bu fekkee mbëri raisonnable ne mooy lu ñu ko waxee rek dinañ tëgg làmb incha allah sinon aussi ñu ngi si production ñu ngi si yeneen activités ñu ngi koy doxal. Ah, ñoom aussi tant que activité yooyu mi ngi dox ñu ñu ñu ñu ngi si. waaw ah, maintenant làmb ji nag mu ngi nii ñu ngi si làmb ji daal. bu fekkee ni dox nañ affiche mu dox incha allah dinañ tëgg làmb bëggal bëggal sénégalais yi bëggal amateurs yi. ban kàddu muñ ngay wax sénégalais yi mais ñi nga xam ne nii tamit. ay internautes lañ parce que Leewtoo TV yow yaay kilifa gi te nit ñi dañ koy seetaan ñi ñuy seetaan rawatina fan si Leewtoo TV yeeg ñooñu ñëpp loolu leen di wax ñoom tamit. mais ñooñu xanaa di leen sant rek bañ a awma sañ fay parce que nit ku nga teg benn instrument ni ñuy jëkk utiliser rek déjà loolu gërëm la ñoom ñëpp dañ leen di gërëm di leen wax ni li ñuy def ñi aussi li ñuy teg ñi yëpp pour ñun pour pour askan bi la pour amateuru làmb la si jàpp ne ni làmb ji waru fu mu toll waruñu am rek benn sit boo xam ne mooy relaté war na am yu bëri donc war na aussi ay journaux yu bëri yoo xam ne quotidien yu bëri yoo xam ne ñooy ñooy ñooy wax ci làmb donc lu ñuy def nii pour ñoom la donc di lay remercier di lay wax ñu gën a suivre Leewtoo parce que lépp lu ñu fiy joxe rek lu lu vrai la du loo xam ne tey jii dañ koy créé di inventé te duñu indi mukk polémique suñu site parce que loolu dafa am solo waaw dañu am ligne ligne ligne de conduite bu ñuy bu ñu nekk te ligne boobu aussi duñ ko jéem wàcc jamais donc di di di di di gërëm ñëpp surtout mbër yi aussi donc entraînement métti na durant une année ngay nekk di entraîné di entraîné saison bi jeex amoo combat war nga mën a xoolaat sa bopp xool ne ah man kat daaw li tax aw ma combat lii la woon ma jëm ko wàññi pour am combat parce que mooy lu ma wax nit moom mbër bëre la donc at bu nekk minimum war nga am benn combat boo def. donc boo raisonnable di nga di di am combat donc jërëñ gërëm ñoom aussi sonn nañ ci parce que seen sport la seen seen gagne la donc ñu gën a raisonnable par rapport li nga xam ne ni moom la moom la moom moom la làmb ji laaj donc incha allah bu amee sa relation ak promoteur yi après nga tàggu sénégalais yi non man sama man promoteur ñëpp samay xaraj lañu man awma ci awma ci benn problème ñëpp samay xaraj lañu gis nga ñun amuñu problème ak ak yi donc parce que ñoom ñëpp suñuy ancien su suñuy mag lañu si làmb jëla lañ fekk doo ñu def lu ju roy leen te nit na doo ko roy ba pare di bëgg am moom problème donc ñaanuñu am ak kenn problème donc lépp lu ñuy bëgg a tëgg nit bu ko bëgg yàlla na ko yàlla na ko jik na ko jël ñu jàppale ko ci donc ñun aussi donc ça veut dire que ñun amuñu benn problème ak benn mbër di nuyu président Pape Abdou Fall donc ñu teg nuyoo bi ñëw promoteur bi teg solo loxo Pape Abdou donc di leen nuyu ñoom ñëpp di wax ni daal ñoo bokk famille bi ñoo bokk sport bi nga xam ne moom nañu ñu war a dundal donc ne relation yi gën a rafet rek incha allah ñu jàppalante donc sport bi dina gën a dox. waaw ñu kontaan ci yéen aussi.